asalaamaaleykum mbokk internet yi ñuy teewlu ci seen chaîne YouTube Vision Dakar TV ñu ngi leen di dalal jàmm suñu émission tey nag ñu am mbégte ak kontante dalal ki nga xamante ne mooy Mouhamadou Moustapha Sourang di njiital mouvement saytu sëñ bi ñoo ngi lay nuyoo. mbokk internet yi ñuy teewlu ci Vision Dakar TV ñi ngi amaat mbégte ak kontaante di leen dalalaat fii ci suñu plateau tey nag ñu am mbégte bu mag ak kontaante di dalal kile di euh, Mouhamadou Moustapha Sourang di njiital mouvement bi di saytu ñu fas yéene waxtaan yaatal ci lépp li nga xamante ni mooy actualité ñeel ñeel doxinu réew mi ak lépp lu ci aju ñu di la dalal sëñ Modou di la bàyyi rek nga nuyu nuyoo ak suñu mbokk internet yi waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatu soxna Daba ñu ngi lay nuyu di nuyu ñi nga àndal ñëpp ak ñi nga bokkal émission bi ñoo leen sant di leen gërëm waaw di wax ci moment bi nag mais moment bi moom liñ ci wax sax ah, du bari lool parce que ñu bari xam nañ ko dégg nañ ko mais dañ ciy dolli tuuti rek di wax ni moment bi nekkul moment boo xam ne si dañuy ñëw rek pour jaar jàll moment bi saytu la. te saytu bi dañ koo dëggal ñun lépp loo xam ne si loxol état ma nga ca fas nañ ci dugal suñu kàddu fas nañ ci dugal suñu loxo kon nekkul loo xam ni lu ñuy sabantal la wala loolu fas nañ ne bépp sànca bu mu doon wala lépp loo xam ci politique la wala luy dugg ci réew mi wala luy génn ci réew mi fas nañ cee koo càmbar dugal ci suñu loxo la ca nekk dinañ ko xam ñaar dossier bi ñu téye ko xaar bis ñu génne ko wala saat ñu génn ko jox ko askan wi ñu xam li ci xew waaye mouvement bi nekkul mouvement boo xam ni falaa falaa la te ñi ci ñi ñëpp ñoo xam ne si bokk nañ ci mouvement bi du ñoo xam ne si nit caaxaan lan ñu xam dëgg la ñu fas yéenee liggéey te réew mi dañoo fas yéenee xam li nekk ci réew mi ak réew mi ni muy doxee parce que gis nañ ni li ci ëpp dañ koy fowe te ñun loolu duñ ko d'accord lépp loo xam ne si taxawal nañ ko fas yéeneen koo càmbar dossier bi nag bis dana ñëw ñu génne ko weer ko ñëpp gis ko kon nag réew mi nañ ci doxin doxin wu rafet waaw. Ah, ci buy loole ba tey dañuy wéyal ci suñu plateau sëñ Modou ñu bëggoon rekk nga dikkaat tuuti ci li leen di fonds politique yi. waaw soxna si côté boobu buñ ko jàngatee dan naan li ci xew c'est catastrophe parce que réew mi lu bari dañ ko war péncoo xoolaat ni muy doxee jamono bi nga xamee ne si président bi woote na dialogue defe woon naa ni ñin woon am na xelum ñu waxtaan ci loolu waxtaan ci lépp lu yitte réew mi parce que réew mi li ci dugg ci alal ak nit ñi nit ñuy doxee dafa woote wute parce que am na lu ëpp nit ñi gisuñ ci seen bopp ca alal ji bari na lool da ngay dem ba ci yàgg daf lay yéem fond de politique yi ni ñu koy doxali du dëgg du yoon bu fekkee ni dañoo bëgg président la république ñu doon ko jox juróom-ñaar fukki million ak fanweer par weer ñu ni mini premier ministre ba muy am dañ ko jox cent vingt millions téeméeri million ak ñaar fukk ñu ni assemblée nationale dinañ ko jox cinquante millions juróom fukki million conseil économique dinañ ko jox trente millions muy fanweeri millions conseil social dinañ ko jox quarante millions mu ñeent fukki millions boo totaalee loolu lépp nekk ci neuf cent million par weer réew mi di ko génne di ko joxe chaque weer te xamuñu xaalis boobu nu muy doxee ak fan la jëm da naan boo xalaatee danga naan lii du dëgg da nga naan c'est catastrophe ci réew mu nekk ak ni nga xam si ni la dëkk bi doxe waxuma la loolu nga dem ci ñi nga xam si dañuy def indemnité yi leen di jox indemnité wala ñu leen di jox indemnité de logement wala prime de voyage yooyu yëpp ñu di ko génne alal ji ñu war koo liggéey réew mi wal cee surwaasale dëkk bi ñi nga xam ne si dañu uh, liy génne ci poor bi pour nit ñi àttan ko mën ko jënd ay ñu néew di ko séddoo nit ñi bàyyi ñun ñëpp ñu ni tekk bàyyi sun di mel ni dañoo tënk xamuñu dara bàyyi leen ak alal ji ñu ko saax-saaxee loolu du dëgg du yoon boo dee seet at mi fond de politique yi dinañ génne fukki milliards ak benn ak lu topp di ko joxe muy xaalis buy naaw loolu war nañ cee waxtaan war a xool ni muy doxe réew mi lépp ñu woowaat ñu def ay assises xool réew mi ni muy doxe ñu xool la ca nekk ci biir waaye waruñoo bàyyi rek muy doxe noonu. jàpp nga ne li leen di fonds politique yooyu nga xamante ne dañ koo yëkkati pour mu dugg ci yenn chantier ci askan wi jàpp nga ne fonds politique yooyu fi mu war a jëm jëmu fa. la looloo am fonds de politique yi la taxoon mu jug ak ñoom ni koy doxalee du benn danoo wax ni fonds de politique. bu demee ba nga xam ni ki jiite dafa nar a am loo xam ci dafa dal nar dal ci askan wi wala mu nar a dal ci ministère bi wala mu nar a dal ci benn pàcc mu génn ca pour arranger loolu loolu ko taxoon jóg mais ñun gisuñu loolu liñ gis mooy képp ku ko ci ku ko ci jël ci sa poche lay dem li ëpp parce que bu fekkee ni at mi dina génne fukki milliards ak benn ak lu topp di ko joxe te mënoo wax ni lenn lañ ci def xaalis boobu di naaw kooku dañ koo war a annuler wala ñu wàññi ko ba nga xam ne si lu yam waaye jël xaalis bu toll noonu rek muy dem boo xootee fukki at yi ak ak ak ak ñaar wala fukki at yi buñ la waxoon li ci génn ci ay milliards dangay ngay yéemu ci yàlla buur bi da nga naan ay usine usine mën na koo tabax ci xaalis boobu di dem bokkut ak seen i solde bokkut ak lenn ñu ni directeur ñun dinañ ko jox 11 million wala ñu ni dinañ ko jox 15 million yooyu ak solde yooyu dafa tegawut fenn fenn ci réew mu néew doole ñu ne assemblée liñ leen di jox ci xaalis carburant bi leen di jox logement bi seen téléphone loolu lépp boo ko xoolee xaalis bi naaw ci réew mu noo néew doole war nañ ko xoolaat loolu du dëgg du yoon war nañ ci def assis yoo xam ni ñun ñëpp dinañ toog càmbar li nekk ci réew mi xool ko xool ni muy doxee ñu waxtaane ko tekku ci dëgg muy lu yam loo xam ni kenn ku nekk dana ci gis sa bopp ci lu tey réew mi dana dem. di criminalisation li leen di homosexuel maanaam borom ñaari tur yi mu mel ni boobu la loi ñi leen di sàmm ko yóbbu woon nañ ko fële ci assemblée nationale ngir député yi daal di koy voté waaye mu mel ni ñenn ci ay député ñoom nanguwuñ koo voté parce que jàpp nañ ne bu ñu ko voté ci ñenn ñi. lii nga xamante ne moo nekk ndimbal di jóge ci bitim réew di dugg fii ci réew mi dañ koy gàntal mu mel ni ba tax sax kili di mun euh, Mountakha génne na ci ab communité communiqué di artu yéen seen mouvement ban taxawaay ngeen am ci boobule loi criminalisation homosexuelle. loolu nga wax soxna si moo nekk tey dëgg dama ragal ni waa réew mi ci boppam sax laay wax xamuñu lan mooy góor jigéen waxuma danse gi mu danse mais yàq gi mu yàq askan parce que képp koo xam ne xas nga ci dugg. rey na say cër rey na sa jikko rey na sa lépp loo xam ne si joxoon na la condition wala mu jox la nga nekkoon koo xam ne waroon nga dem ca kanam wala nga nekk koo xam ne war nga créer dara wala koo xam ne si war nga fas jom dafa lay rey rey sa siddit rey sa lépp kon góor jigéen danse gi ci nekk yaakaar naa bu ñu ko xamoon ñun sax dañuy toog fan toog ñoom waa assemblée ñoo jug def liñ war a def mais defuñu ko ca xamuñu ko parce que dafa nekk loo xam ni suñ borom da koo araamal muy lu bono bono bono bon kon buñ jugee ba yóbbu pour ensemble pour ñu woote ko ñoom ñu bañ koo woote dama ragal ni ba léegi ñoom umpale nañ lan mooy góor jigéen rawatina suñ kilifa yi diine yi nga xam ni sii ñoo ŋànk réew mi lépp lu réew mi jëm ñu ñaanal nu jiitu nu ci lépp loo xam ne soxla nañ ko ñu ñaanal nu yéenanu ko kon yaakaar naa ñoom buñ bokkee ci dem ba nga xam ne si ñoom joxe nañ seen kàddu ni loolu nan ko fi jëlee wala bu du loolu nañ woote criminalisé ko ñoom ñu bañ ko damaa ragal ni askan wi war nañoo jug te ñun nag duñ ko bàyyi lool noonu. parce que nekk na loo xam ne si dafa dansé cim réew senes lay rey rey réew rey économique parce que képp koo xam ne xas nga ci tàbbi économique yow dangaa rey économique gu dëkk ba parce que say cër lay njëkk rey. képp koo xam ne bépp liggéey bu laaj condition du doo ko def bépp liggéey bu laaj jom du doo ko def yow la ngay xam mooy tëgg ak fecc wala ku la gis sax dala sax yéem a xool kon loolu dinañ ko crimin criminaliser dinañ ko woote ci nii wala ñu woote ko ci naa ñun dey taxaw nañ ci bépp côté boo xam ne sii war nañ ko xeex dinañ ko xeex. waajtaayu élection locale ku wax élection locale wax euh, jongante gox goxaat yi. gox boo dem marchand ambulant yi am nañ fa ay jafe-jafe ci samp bu ñuy samp ci yenn bërëb njiital gox ba di leen fa jéem a jëlee mu mel ni tolluwaayu marchand ambulant ak seen nekkin fii ci réew mi jar na seetaat parce que ay jeunes ay ndaw yi nga xamante ne jug nañ pour daan seen doole waaye mu mel ni bëri na ci ñi nga xamante ne fépp fu ñu samp njiital gox goxaat yi ñu ngi leen fay yëkkati. est-ce que jotul tamit taxaw tolluwaayu marchand ambulant yi seen nekkin ñu xoolaat ko bu baax ci réew mi. waaw soxna si ñoo ngi lay gërëm li nga wax dafa nekk loo xam ne lu jar jàngat la dëkk bi senes bi toll nañ foo xam ne si dama ragal ni képp koo xam ne si defoo ci jàngat amoo xel il faut ñu jàngat ci réew mi ni muy doxee il faut ñu jàngat ci population bi population ba Senghor yone woon Sénégal du boobu ab Diouf a ko yore population ba ab Abdou juuf yore woon Sénégal du ab Ablaye Wade ko ko yore population ba Ablaye Wade yore woon Sénégal du Macky Sall moo koy yore parce que Senghor ñi ngi waxoon ni population 4 millions 5 millions Ablaye Abdou Diouf dem nañ ba ci 7 millions Ablaye Wade dem nañ ba ci 15 millions Macky Sall ñi ngi wax ay 15 16 jëm weex kon population boobu yaakaar naa ni du lañ xaaroon ci ñële moom la ñuy xaar ci ñii li ñuy xaar ci ñii kay ñu jug ñoom ci seen jëmmi bopp xool askan wi ci kaw ay bët xool li nga xam ci réew mi loolu lay yelloo xool ni nga xam ci ni lay doxee képp koo xam si nekk nga sën ñu fexe ba nga am liggéey bu fekkee ni si nag dangaa nekk commerçant di marché ambulant war nañ ba fexe ba teg la benn béréb boo xam ne si béréb booba da nga fa nekk mën a liggéey mais waruñu laa seetaan rek nga nekk ci mbedd yi di daw a daw daw a daw ba gan ñi nga xam dañu jugo bitim réew sax bu ñëwee dañuy yàpp ca loolu moo si nekk dañuy yërëm dañuy yab ba xam ni sunu njiit yi sax duñ leen teg fenn parce que li ko waral mooy sàggane goo xam ni sàggane nañ ko seenu askan chaque nga dégg waa bitim réew di leen ci sànni xeer di leen ci lu nekk ñu leen koy wax ngir sàggane goo xam si sàggane nañ ko askan wi kon war na noo jug képp kuy senes ñu fexe ba nga jàpp ci dara loolu mooy indi sécurité loolu mooy indi réew moo xam ni stable mu réew mooy indi ak dal loolu mooy indi xel yu dal loolu mooy indi réew mu set mu loolu mooy indi xel mu dal cim réew kon nañ jug lépp loo xam si nekk ki nga xam ne nekk nga fi senes ñu fexe ba nga nekk ci dara ni loolu yomb na wax nañ ko waxati ko ñi nga xam si dañoo am luñ commencé ñu fekk leen fan nekk place yoon yor ñu gunge leen financé leen ñu liggéey ñi nga xam ne amuñu ko ñu fexe leen ak kereel ay place ñu nekk fa di liggéey alal ji nga xam ne ñu ngi koy sàcc ak alal jiy naaw nan ko dajale defaat ko ci askan wi askan wi mën a siggi. mairie yi la gën a laal dëgg la état bi ci la waaye dafa mel ne mairie yi lañu lay gën a laal parce que gox ya ñuy samp. patente ak juuti yañ leen di daggal ca mairie ba yaakaar naa ne ñoo koy gérer kon mairie yi nga xamante ne nii ñoo loolu ci ñoom la aju ñu nekk ci jamonoy élection locale di séentu yeneen i maire ci ci gox bu nekk maire bu ñëw tey jii lan moo war a nekk njëkk sa taxawaay jëmale ci yooyu la marchand ambulant. côté boobu damay yaakaar ni sax maire yi bu ma déggee ñu naan liggéey nañ man damay defi ree bu fekkee ni si yow. sa gox ba nga nekk marché ba fa ne dem na ba nga xamee ni si nit ñi sax amuñu fuñ jaar ndax ñuy lal wala ñoo xam ne si dañoo dem ba atelier ya ak yëpp nangu yoon wa mooy seenu ñàkk liggéey ñoom li ñu war a def mooy fexe ba nga xam ni képp koo xam ni yor nga nekk nga marché ambulant wala ngay liggéey ca marché ba ñu fexe ba nga am kantin nekk fa ca fexe mu set loolu la xalaat ci ñoom te ñoom war nañu taxaw jàngataat kenn ku nekk sa gox ba nga nekk na nga fexe ba nga xam ne si ña fa dëkk mën a dund ci dund gu mucc ayib dund gi weesuwul nag ña fa nekk ci senes nga fexe ba nga xam ñu jàpp ci dara doo xam marché euh, euh, supermarché nga leen di tabaxal ñu yaa xam lépp loo xam si war nga fexe ba nga xam ñoom taxaw nañ ca jàpp na jàpp ci fu si yéenee liggéey nga taxaw ci loolu loolu moom mooy yoon wi te ñoo ngi leen di woo ci loolu sax ñu wéyal ci mbiru jaay ak jënd ndax ku ne xam na ne foire bi nga xamante ni dañ koy amal chaque année ma daanaka sax toog nañu ñaari at euh, amul ndax li la di Covid 19 bi ren jot na am waaye mu mel ni dem nañ ba ci biir date bi nga xamante ne fa lañ waroon arrêté ñu prolongé ko affaire bi dem ba nga xamante ne mel na ni gudd na. est-ce que lu ni mel du dem ba mu doon ab pëccëxoo ba bi nga xamante ne valeur bi foire war a am dëggantaan dootu ko am. waaw soxna si. wax nga dëgg li nga xam si moo ci nekk ci foire bi dafa yéeme ba egg ci lool foire bi bu ñu waxee dëgg rek Abdou juuf moo ko fi bàyyi woon ab foire mais ba fi Abdou Diouf jógeeg léegi foire amatu fa ñaar saax-saaxee na sun suuf lan fa am ci suuf espace ban fa amoon ak ba fa nekk fukkute woon na ko jaay nañ ko xaalis biñ ko jaayee kenn du ne ne trésor lañ ci dugal dañ ko séddoo lu toll ni suuf bu yaatoo noonu nga xam ni boo ko doon seet da nga naan ci hectare ay 2000 hectares wala lu ko ëpp te jaay nañ ko ba la fa des boo doon seet mut sax 20 hectares ñu def ko foire kon foo côté boobu tooñ nan sénégalais dañ ko waroon a bàyyi nam meloon national international ñëpp di fa ñëw di war seeni produit mais defuñu ko dañ koo yàq jaay ko jaay suuf ba ba foire bi nurootul lenn lu kenn xam Macky Sall nag bi ñëwee gën koo rey parce que foire du marché moom dafa defe ni foire marché la dégg naa yuute nañ leen Dubaay ñu dem di fa yóbbu am njaay ca loolu taxul mu jug foire foire la tudd da ngay am say produit yooyu présenté mais da ngay dem di fa jaay loolu moo bëgg a dal suñ foire bi fowe nañ ko yàq nañ ko international bi ñëwatuñ foire bi nurootul lu kenn xam marché ambulant yaag ak ñëpp ñoo fa nekk mu ko mu marché rey rey foire foire du doxe noonu foire 15 jours la laaj gën ngaa yàgg un mois boo ko defatee déwén la boo toppee nit ñi lan lay wax mën na dem un an te duñ doyal yow yaa koy xool fa nga xam ni fa la war a yem ngir ëllëg ñeneen ñi ña ngay invité ñu jóge bitim réew ñëw attan fee indi seen i produit <clears throat> attan fee indi seeni kere loo xam ni ñoom dañ koo créer pour présenter ko mais du loo xam ni dañ ko bëgg a suppli kon foire bi nañ ko delloo fa mu nekkoon ëllëg si biir ñin ñëwoon am yéene pour ñëw ñëwaat waaye bu fekkee ni si ñooñu bu ñëwee lan fay gis dañuy da day dañuy dem ba dañuy décourager loolu moo bëgg a dal foire bi kon foire bi nañ ko yamale te nam doon doxe nam doon doxe bu njëkk nañ koy doxale noonu 15 jours gën ngaa yàgg un mois ña leen présenté ñu indi ko ñu présenté ko nit ñi gis ko ña fay amante ay contact ñu am ko ñëpp koo xam ne yaa ngi fa am partenaire nga am ay partenaire loolu moo tax foire bi jug suñ national suñ fii nga xam si mooy Afrique boo dee seet ñoom kese ñoo fa des waaye boo demee Asie wala Europe wala Amérique wala ñoo ñëpp ñëwatun te bu njëkk ñoom ñëpp dañ doon ñëw ñenn ñu nekk siin ñu indi ñi nga xam ñi nga xam dañoo créé ay oto ñu indi ko ñi créé avion da ngay gis sax ñu indi ko yooyu yëpp ñu indi ko teg ko loolu mooy foire nga jàng ci fas yéene saw askan nekk ñoo xam ne ay créateurs mën a liggéey am jëlee ca xam-xam mais foire boo xam ni comme marché ambulant ñu fay wanteer rek def yëpp loolu du foire te buñ ko bàyyee nii danañ ko gën a yàq parce que ñoom xamuñu lan mooy foire kon foire bi nañ ko delloo ca dem nekkoon bu njëkk ñu ku képp ku fi ñëw da nga sawar a ñëwaat képp koo xam ci invité na la def na invité d'honneur nga sawar a ñëwaat ba mu la defee invité d'honneur sax dangay ngay parce que la nga fay gis dafa mel ni ab marché kon foire bi nañ ko xoolaat jàngataat ko jàngataat lan moo nekk ci réew mi ñu doxe ko réew mi jëm kanam. Modou ñu ngi nekk ci li la di campagne électorale ñeen rek li di élection locale yi yan kàddu nga mën a yëkkati jëmale ko ci jeunesse bi nga xamante ne meeting yi door na ibbi nañ ko niki démb meeting yi tàmbali na tey. jeunesse bi nga xamante ne dañ ñii dañ leen di faral di wax ne dañ leen di jox ay 5000 ñi ay tissu ñi ay lii pour ñu topp politiciens yi ban sensibilisation nga mën a yëkkati jëmale ko ci boobu jeunesse mu gën a mën a bàyyi xel lii di kaaraangeem. loolu ñu ngi wax ni rek campagne bi commencé na ay élection ku ne xam na ni xëccoo bi day bari mais lépp nañ ko teg ci dëgg jeunesse bi ñu ngi leen di woo ci jàmm ca kenn ku nekk gox ba nga ne nga bul xool rek nit ki daa ko faral. xoolal la gën ca gox ba candidat ba nga xam ni yaakaar nga ni boo ko falee dana liggéeyal gox ba nga fal ko nga jàppale ko loolu lañu séentu ci ñoom tey woote jàmm wax nañ ni am na ñoo xam ni doon nañ def sax pour signer pour ñu woote jàmm ñooña liñ doon def ñun ñoo ngi leen ci gunge di leen ci jàppale ndax jàmm moom lañ soxla ci réew mi lépp loo xam ne si lu mu doon nañ ko teg ci dëgg ñi ngi wax état bi buñ eggee ci woot wala bureau de vote yi ak yëpp ñu koy samp lépp ñu teg ko ci lu leer teg ko ci dëgg képp ku gañe ñun la gañe nga loolu la ñuy woote ci ñoom ca fas yéene nag ñu bàyyi caaxaan yi ca liggéey réew mi campagne dëgg la mais politique yi duñ ci dëkk bu jàllee danoo war a jàll dem ci leneen fas yéene liggéey réew mi réew mi dafa aajay taxawu aajay jug taxaw temm pour liggéey ko mënuñu dëkk ci campagne wala ñu dëkk ci di di di def yu kenn xamut nañ taxaw daal pour liggéey réew mi réew mi jëm kanam kon ñoo ngi leen di sant di leen gërëm. Modou mu mel ni waxtaan bi amoon na solo amoon na jotaay bi amoon na solo xuus nañ ci actualité lépp rek ñeel nekkinu askan wi mu mel ni dañuy ñëw yëkkati jotaay bi di la wax rek nga yëkkati sa kàddu yu mujj jëmale ko ci askan wi. waaw soxna si ñoo ngi leen di sant di leen gërëm di sant euh, sëriñ bi nga xam ne moom moo yore télévision bi di sant ñi nga xam ne ñoom la àndal ñëpp di wax ni wax dëgg fa yàlla ñoo ngi leen di sant di gis seen liggéey. liggéey bi ngeen di liggéey rafet na trop ci lépp dara taxu koo jóg lu ngeen bëgg réew mi jëm kanam réew mi tegu ci yoon jeunesse bi kenn ku nekk jàpp ci dara kon loolu dañ leen ci encouragé di leen sant di leen gërëm di wax ni ñu bañ a taayal rek jàpp ak lu metti metti rek ñu jàpp yaakaar naa bu ñu ko defee dinañ gis solution kon daal tax na ñoo ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal nag lépp loo xam ne yëkkati ngeen ko suñ borom teg ca loxo mu jëm ca kanam. jërëjëf suñu mbokku internet yi ñu doon teewlu ci Vision Dakar TV suñu plateau tey ñu dalaloon clé di Modou Moustapha Sourang di njiital mouvement bi di saytu ñu amoon nag mbégte ak kontaante bu mag di leen ko digtal àndoon ceek uh, sëñ Massaer ak kile di. Moustapha ci xarala gi ñu ngi leen di jaajëfal di leen dig daje ci beneen jotaay jaa ngeen jëf.